rahmaani rahim barkeb Serigne Touba Xadim Rasoul asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñuy seetaan foo leen mën a nekk ci réew mi wala bitim réew ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaaraat fi ñu koy baaxoo defee bi weeru safar wi teroo ak léegi muy fii ci Touba ci daaray Kamil bibliothèque Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasoul ngir ànd ak yéen nag ci dundal weeru tedd wi di weeru safar wi ci ndigalu Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te wér ñu mu ko joxe ndigal ngir ñu dundal jumaa ji ak li ko wër ci jàng alxuraan jàng xasida waxtaane sëriñ bi ak màggal gi tax na nag bi weer wi teroo ak léegi fii ci daaray Kamil ñu ngi koy topp ndigal loolu ci njiitu sëriñ Moustapha Jatara mi nga xam ne nii ci ak saytoom la bërëb bu tedd bi nekk ak mboolem ñu ngi koy àndal tey jii nag di juróom-ñaari fan ci weeru safar e, tombe ak juróom-benneelu jataay bi nga xam ne nii ñu ngi koy amal di ay waxtaan yu am solo Euh, jataayub tey bi nag ñu ngi am mbégte bu baax a baax présenté leen mbokk yi nga xam ne ni ñoo ko fas yéene waxtaane ñu toog ni thème bu am solo muy soufisme ak Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasoul thème bi nag ku ñuy wax oustaz Adama Ndiaye moo ko fas yéene waxtaane waaye bàyyi Dame Ndiaye moo koy modéré ñoom ñoom la ñu war a jox kàddu gi léegi waaye di fàttali rek mbokki julliti ak taalibe yi jataay yu am solo yi man ngeen koo topp ci ay bërëb yu fasantikoo moo xam muy réseaux sociaux yi yenn rajo yi ba ci télévision yi nga xam ne nii ñu ngi jël signal bi wala bokk ñu koy rediviser ngir ñëpp mën cee jëriñu bokk na ci loolu fii ñu nekk muy chaîne YouTube bu chaîne YouTube bu Daaray Kaamil waaye ñoom itam dañ koy direct ci fi nga xam ne nii mooy seen page Facebook ak yeneen télévision ak YouTube yi nga xam ne nii dañoo fasantikoo ci ak kuréel gu am solo di jëlandoo signal bi di ko jàllale ba mbooleem fu mbokkum taalibe nekk ci réew mi wala bitim réew mën a ànd ak ñun waxtaan wu am solo wi comme niñ koy baaxoo di defee rek saa su nekk euh, di jaajëfal mboolem ñi nga xam ne nii jaar nañ fi xam naa la modérateur dina ci gën a yaatal ci seen disponibilité ngir jamono yi ñëpp xam na ne jafe-jafe temps dafa am ak màggal gi ak programme yu bëri yi waaye bu waxtaan wi noppee itam niñ koy defee su fekkee am na ay laaj yoo xam ne nii dafa ñeel thème bi danañ ko bind gaaral ko lépp luñ ci mën a tontu ñu tontu ko kon ngir jëkkanteeg waxtu wi dañuy jox Baye Dame Ndiaye mi modéré mu dalal ay ganam continuer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 waxtaan yi nga xam ne moom la ñu amale fii ci Daaray Kamil ci jokkookaay yi nga xam ne mooy Touba Vision ak Almouridia TV Bichri TV ak fu ñu waaye man di toppee ñu ngi leen di nuyu te di leen ziare ci weeru mag yi ñu nekk di weeru safar di jiital ci nuyoo ak ziare yi cheikhina wa wasilatina wa mawla cheikh Mouhamadinil Muntaqa xafidahu llahu yal na ko yàlla yàggal te barkeel ko te liggéey bi mi liggéey yalla samal ko ko te mu ànd ko mbokki julit yi mbokk mbokki yépp di am mbégte ak e, contentement ci and ak yeen ci waxtaan yi nga xam mom lañu amal ci wéru maggi wi di wéru safar ci berndeele ko ruhi euh ñu and ak suñu mbokk serigne Adama euh serigne Adama mi nga xam moy def waxtanu tay bi la ñëk ñuy ñëw ci mawduu bi nga xamne ne lay wara and ak mbokk yi ñu xamle tuuti ci jaar-jaaram ci côté xam-xam euh, serigne Adama doomi dekk bi la bokku ci askanu njaré fi la jàngi alquranul karim ba wattu ko ci sering serigne Ibrahima siñan ginaaw bi la soobu ci njànginum xam-xamam jaar na ci majalis yu fasantikoo ñu mën cee tudd majlisu sëriñ xaadim mbay ginnaaw bi la jaar ci école yi arab yi jaar na ci mahad durus islami bu sëñ Samba Mbakke Gaynde Fatma bi bi ñu xam nga xam ne génne ne ay cadre génne ne ay boroomi xam-xam génne ne ay kilifa ci sunu réew Sénégal ginnaaw bi ci la jógee dem jaamiatu zaytun boobu ñu xam fële ca Tunis ci fasiyene fa agale njangum njàngum xam-xamam ci côté université yi ne fofu ginnaw bi ci la amé ñu tuddé spécialisme ci al-hadara al islamiyya civilisation islamique noko nonu ci la défé masteram ba ci spécialiste bobu ci côté bobu ñu wax al-hadara al islamiyya euh inscrire tibit ci niveau doctorat mais ci étape 2 ci tomb bo xamne mom la bëgg ànd ak jangum kawem fofu ci al muslimuna wal istimar européi min khilal mu'tamar Berlin 1884 ak 1885 kon mom étudiant la en même temps timit chercheur la gessu kat la mom serigne Adama ginaaw bi mu ñibbisee ci réew mi lan ko yare won jàngale ko ci xam-xam mom la fas wat waat la wat njukkal lol serigne bu mag bi mu nekk tamit jàngalekat ci ay établissement yu wuute ci dëkk bi ñu nekk ñu mën cee tudd mahad durus islaami yi fi nga xam ne fa la doon jànge nekk na fa tamit en tant que professeur comme jàngalekat euh, naka noon tamit mi ngi ci benn établissement bu xam muy daaru alimil xabir xisbu tarqiya naka noon tamit mu ngi nekk élève professeur ci FASTEF kon ci tënk rek koku moy serigne aadama mi nga xamne mo ñu fasiyene and ak ñun waxtan wi ginnaw biñ ko xam tamit ñu ñew tuti ci euh, programme bi nga xamne ne la fasiyene and ak ñun moy thème bi nga xamne ne moom la fas yéene waxtaane mooy alxitaabu tarbawi as-sufi min shaykh al-khadim addi wiinu nu serigne touba addi wiinu njàngale goo xam dañ koy ballalo ci mbindum serigne touba li discours éducatif boo xam ne day basé wu ci côté soufisme waaye ñu basé wu ci njàngaleem Serigne Touba loolu moo nekk poñ bi nga xam ne moom la Serigne Adama fa yéene ànd ak euh, mbokk yi euh, lu njëkk muy ñëw ci loolu tamit dana biir waxtaanam dana leeral baat bu ñuy dégg te di ko faral di ko jottali ko ci bat jataay xam-xam yi mu tuddee kalimatu mujaddid dana ñëw xamle lan mooy mujaddid kii di tuddee ku yeesal mooy kan ak yan sartu mooy gàllu ci kawam pour mu mate doon mu jaddit bu ñëwee ci loolu dana ñëw tamit ci li ñu tudde alxitaab discours lan mooy xitaab ci almaanal lugawi tamit dana ko ñëw tamit leeral ko ci almaanal istilaahi ci ñaari anam yépp bu jógee ci loolu tamit dana ñëw ci concept lan mooy discours éducatif ndax xitaab tarbawi yi la wax waaye dana ñëw tamit leeral ñu lan mooy alxitaabu tarbawi lan mooy discours éducatif bu nu waxee discours éducatif lan lan ca jublu concept bi lan la ci noonu dana ko leeral ci ñaari ñu ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari pàcc mooy alxitaabu tarbawi ala al mustawa ruuxi lan mooy discours éducatif bu basé wu ci niveau lu ñu tuddee ci domaine Euh, inspiria euh, euh, ci côté esprit bu ci jógee tamit dana ñëw leeral lan mooy alxitaabu tarbawi alal mustawa al ijtimaai lan mooy discours bu buñ ko ñëwee teg ko ci côté social loolu mooy tomb yi nga xam ne mu toll ci juróom benn tomb yoo xam ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعلى آله وأصحابه ذوي الردوان والتمكين مبكي نيو لي دي نيو اسلام دي جيتال تي نيو بي بروم كيرغي موي بروم دك بي سيرن منتقى مبكي حفظه الله ورعاه di nuyu itam mbooleem képp kuy topp jataay bi ci mbirum xam-xam ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax mu mel ne waxtaan wi comme ni ko sëriñ Baye Daam leeralee ci ay tomb ci lañ fas ki yéenee jublu jéem cee leeral kem suñ kemtalaay kàttan ndax xam ngeen ne li ñu tuddee alxitaabu atarbawi assuufi nekk na mustalax boo xamante ni bu ñu yàgg a dégg la ci suufiyank yi ñu di ko jëfandikoo surtout ci côté éducatif xam ngeen ne jamono daa am lu muy doxee dafa am ay wëlbatiku ay taxalubaat yoo xamante ni chaque instant dañuy soxla woo koo xamante ni mooy ñoo def lu ñu tuddee ak tajdiid xam ngeen ne depuis yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam jóge fi ak saxaaba yi ci ginaaw bi am na ñeneen ñu ñëw ñoo xamante ni seen mission mooy lan mooy fexe ba defaat luñ ñu tajjid ndax islam dañuy dem ba toll foo xamante ni day mel ne xalu sawara xalu sawara mën naa bañ a fay waaye day gëmm waaye buñ ko uppaatee rek mën naa daal di boy moo waral euh, jamono ju nekk ay mujaddit di feeñ mujaddit nag lu yàgg la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ci xadis boo xamante ni bu ndemee ci sunanu abi na dañ ci fekk xadis bi mu wax ne suñu boroom dana yónni xarnu bu nekk maanaam téeméer at yu nekk dana yónni koo xamante nii mooy yeesal diina ji man yu du la wax te man ci luga maanaam dafay istigraq lil umum te liñ mën a déggee foofu mooy mu jaddit benn gox maanaam ay mu yu bari mën nañoo bañ a woote woo ci benn mbir ndax mu jaddit kii mën naa ñëw di def jiit ci côté fiqh kii ci côté xadiis kii ci côté siyaasa kii ci côté tarbiya don mu jadid bo xam da nga ñew dajale bari wul niñ koy gisé comme nim feñé ci Ahmadou Bamba bo xolé tambalé ci mujtahid yi ya jitu won yop kan mu jadid ak lan moy charte yi xam ngeen na mu jadid woo woko donu lu yomb waye amna ay mandarga yo xamanteni nit ki suko ko rek mën na ni ki ab jadid la bokk na ca màndarga yooyu mooy muy ku am xam-xam koo xamante ni day ñor ci xam-xam nga xamante ni tànkam bi da koy teg maanaam ci wutuwaayu xam-xam bokk na ci sart njëkk yi ndax mënoo doon mu jaddit ba pare te doo peeg xam-xam yi nga xamante ni moom nga jamanteel mu jaddit day peeg mboolam xeetu xam-xam yi ñaareel bi mu jaddit day doon koo xamante ni day mën a critiquer maanaam li fekk. da koy mëna naqd way du yem ci naqd way da koy mëna def tasxiix bu naqdoo ba nopi da koy mëna wëral té te loolu bo xoolee ci yenn mini sëriñ bi euh, da nga ci gis lu mel non mu jaddit mëna naqd naqd des fois sax boo ko tuddee dañuy jàpp ne safaan bala waaye naqd da bok ci ijaabiyaat yi nit ki toujours da nga wara di jital ak naqd kon bok na ci sart yi euh, mu jaddit muy don ko xam day am katan am pouvoir meuna a naqd ci lim fex moy su fekke ne ay nusus la nusus yi mu gis ne li wute na ak banluwaay xam-xam wala kay xam-xam mën ko naqd su paree mu xol lu wer mu indi ko beneen bitim ci jaddit day don ko xamanteni day fess del ak islam maanaam boko gisee mandarga yi da ngay gis mandarga islam ci mom day doon koo xamante ni lépp loo xamante ni ay xuraafaat la ay bidaa la da koy dàq day doon koo xamante ni xam-xamam day jariñ ñépp jamono ji nekk ak jamono ji ñëw xam day jariñ ñëpp li mu taalif muy def jeexantal ci doomu aadama yi loolu bokk na ci charte yi al mujaddid te yii ñu wax yëpp boo xoolee mën nga koo tënkale mën nga koo def mu xaaraba ci mbindum Cheikh Ahmadou Bamba xam ngeen ne mujaddid ginnaaw bi saxaaba yi jàlle te boroom xam-xam yépp dëppoo ne ginnaaw saxaaba yi ki njëkk ci mujaddid mooy Omar ibn Omar ibn Abdul Aziz moo nekk al mujaddidu al awwal min ulil amri moo ci njëkk tega ci alxasan al basri nga xam ne bokk na ci fuqaha al basra tega ci ibnu zihab nekkoon na mujaddid ci côté xadis tege ci alxaasim ibnu muhammad bokkoon na ci fuqaha yi madina ñëw ba ci muhammad ibnu idris idris ashafii nga xamante ni bokkoon na ci al mujaddid fi l xarni asaani ndax xarn bu nekk day am ay mujaddid noonu la mbir mi continuer ba yegg ci Cheikh Ahmadou Bamba waaye boo xoolee ñoom ñii ñu tudd ñëpp ku ci nekk am na contexte siyaq bu tax mu feeñ boo xoolee contexte bi ñoom niñ dikkee ak ni Cheikh Ahmadou Bamba da fay xaw wouté parce que ñom mu jaddi doona yi ay gis na dañuy ràññeeku ci ben côté imam Shafia dafa ràññeeku lool ci fiqh nga gis ne da dafa ràññeeku lool ibnu Shihab ci xaddis waaye boo ñëw Cheikh Ahmadou Bamba da ngay gis ne moom dafa peeg mbooleem xeetu xam-xam kon mom circonstance bi mu mom mo gëna day war mo gëna yéme ñi jitu won benen bi question bi ci top moy laaj lan mooy alxitaab bu ñu waxee alxitaab xam ngeen ne mooy discours discours nag mooy ci arab alxitaab huwa tawjihul kalam, liman yafham mooy damay wax ci koo xamante ni dama bëgg mu dégg li may wax loolu tuddee alxitaab kon su fekkente ni dama wax nii rek te jubluma ci kenn loolu nekkut xitaab ndax xitaab dafa am ay charte charte yi day dajaloo ci moom mu mën a doon xitaab ndax bu fekkente ne sëriñ bi diskuuram bépp day wax te waxut ak murid yi su ba nekkul xitaab loolu ma na ko tuddee alkalaam ndax alkalaamu aamu min alxitaab parce que wax alkalaam moo gën a yaatu xitaab moom da ngay taw jii ci benn domaine ñi nga bëgg a waxal te xitaab boobu munta am lu dul ay charte charte bi njëkk mooy alqanaatu attawasuliya mooy kii wax il faut mu am lu moy al-lugha al-lugha allati tarbutu bayna al mukhatib wal mukhatab serigne bi wax nga xamanteni mom moy al mujaddid ta khitab bu mi def ngir mu mat sàtt yi deja bokku al dajaa at-tawasuliyya moy al-lugha lugha bi serigne bi di wax ak bi mi yare mag ñi nekul lugha bo xamanteni lugha bu dis la serigne bi tim wut lugha al arabiya ci ni mu yare mag ñi waaye am na domaine boo xamante ni arab la fay waxee waaye su fekkente ni ñi mu yar day jëfandikoo ñoom ci benn luxa muy luxa al arabiya loolu dafa bokk ci charte al xitaab ndax ñi ngay waxal il faut ñu dégg luxa bi ngay wax loolu imaamu Ghazali mi ngi koy leeral ci al xitaabu achar al xitaabu achar yi ci téeram boobu di leeral al xanaat bi war a dox ci diggante al muqaatib bi kasrita wal muqatab bi fathita nga xamanteni ni li leen boole mooy alluga ñaareel al qasdiya qasdiya moy lan moy serigne bi lim bëgg wax il faut mo am jublu jublu moy lan lima bëgg wax ñi la jublu wax moy ben khitab bi day jëm ci suñu borom wala mu jëm ci yaronte bi alayhi wasallam wala mu jëm ci ñiko top kon serigne bi wax ji nekut wah rek wax non rek dedet waye da doon wax jo xamanteni am na jubluwaay su fekente ne nekul jubluwaay falaa yu sama xitaaban des ko tude khitab ñettel moy eh, qabiliyatul fahmi la dal Manam xaatab ki ngay waxal day day am eh, day pre, pour mën dekk eh, li ngay wax bu fekente ne manam damay wax gono gu ndaw gono gi amul istiadaat mën dekk li may wax lolu des ko tude khitab te bo ñetti chat yi ñu wax yépp dajaloon na ci mbindum sëriñ bi nga gis ne benn xitaab bi muy def am na luxa bi parce que ay mbindam lu ci bari wala li mu daa dénk mag ñi da koy def ci wolof ñaareel ba am na jubluwaay mooy mag ñi muy waxal di leen tarbiye ci ñoom la jublu waxam ñetteel bi mooy ki muy waxal am na préparation pour mën a dégg li sëriñ bi di wax mooy ñett yooyu kon alxitaabu at tarbi alxadimi mënees na ko tënk ci yi ñu wax ñett yi génn ko léegi li ñuy posé question mooy lan mooy mafhumu alxitaabu at tarbawi bu ñu ko waxee lan lañ si jublu alxitaabu at tarbawi ci luxa dañuy wax ne bu ñu ci mooy bépp wax boo xamante nii yaduuru na tarbiya lépp loo xam dafa jëm ci xeetu tarbiya éducative wala mu jëm ci ay masa ilam wala mu jëm ci problème mu tarbiya walla lépp lu yitteel tarbiya rek loolu ñu tuddee alxitaabu at tarbawi moo xam wax ja dafa doon shafawi wala mu doon maktub benn dañ koo bind wa ilaa mu doon loo xamante ni xitaab la safawi la kon loolu ñu tuddee mafhum al xitaabu at tarbawi léegi ci biir loolu dinañ ci génne beneen taarif muy lan mooy at tarbiya lan mooy at tarbiya bu ñu ko waxee tarbiya mooy i'daadul muslim i'daadan kaamila min jamii an nawaahi mooy da ngay programmer jullit bi ci programme boo xamante ni day mucc ci mboolem côté yi li tàmbalee ci min marxala numuwihi ila marxalati ashayquqa li tàmbalee ci bi mu nekkee gone ba ni mu nekkee mag ci ngay tàmbali di ko defal tarbiya kon loolu mooy mafhum a tarbiya waaye nag dafay dëppoo fii daw il mabadi wal xiyam wa turuq tarbiya allati jaa biha al islam li nga xamante mooy mabadi ak xiyam yi nga xamante ni islam indi na ko ci loolu ci lay jaar kon loolu mooy mafhum atarbiya di mafhum bo xamanteni khas euh, la ndax buñ waxe islam rek loolu khas la Amna yenen yeneen yo xam moy gëna yaatu waye bu boobaa ko bo xamanteni islam moko taxaju kon tarbiya da doon lo xamanteni lu yaatu la lu matale la motax euh, dañuy am ben wuté ak ñi nga xamanteni ñom lañ tuddé al wahhabiyya masalan parce que dañu jàpp ne al ibadat dafay tënku ci mbirum julli ak wor dong déedéet tarbiya nag yëmul ci alal bord ad diini waaye yashmulu xayaatina al kulliya maanaam dunduk doomu aadama gépp li tàmbale ci bi mu nekkee gone ba ni mu nekkee mag lépp ci biir tarbiya la kon moom génnul tarbiya maanaam toujours moom dafay soxlawoo ñu di ko yar Sénégal sax am nañ benn euh, benn loo xam dañ ko dañ ko baaxoo di ko wax mooy nit kii li fekk waajuram mi ngi fi danaan yow gone nga ne ko goo mag lan lañ lay jàngal foofu mooy war na yow passé goo fun la yare kon bu ñu xoolee loolu tim xitaab la boo xamante ni mën na si cee génnee ci mbindum sëriñ bi ñaar yi ma waxoon sànq mooy xitaab boo xamante ni maktuub la ak xitaab boo xam ne safa wi la léegi lan mooy xitaab al maktuub boo xoolee Cheikh Ahmadou Bamba mbooleem lu mu lim bind moo xam ci feq la moo xam ci aqida la moo xam ci tasawuf moo xam ci suluk wala adab wala naxu loolu day dugg ci biir xitaab al maktub lépp lu sëriñ bi bind rek loolu xitaab al maktub la loolu tim des na ko tuddee ba tey an nas parce que nas mooy li lay leeral siyaaq siyaaqu al muxaatib parce que booy liir mbindum sëriñ bi ci ngay xamee sëriñ bi contexte bi mu doon leeralee lii parce que ci bind rek dañ ci mën a xamee ki wax kan la loolu tax arab day léebu ne képp ko wax feeñ moo tax sëriñ bi ci biir nusuus yi nga xamante ni taalif na ko boo ko liiree rek da ngay xam dimension sëriñ bi ban siyaaq la doon waxee sëriñ bi xitaabam daf koo def en daf koo def direct ci côté tarbiya ndax dafa ñëw fekk mu tabax Sénégal bi ci côté al manahij at taalimiya mu am lu menoon léegi sëriñ bi ñëw war a def al islaax te loolu danañ am ay dalil yu bari yoo xamante nii moom wax na ko bokk na ci li mu wax ne waajahani al ilmu min al alimi xabarini al xabiru bi taalimi kon moom mission am kon mooy daa war a jàngale moom sëriñ bi kon bi mu dikkee fekk na fi aw daax yoo xamante nii aw daax xatiira la ci mujtama bi waaye il faut mu jàngal société bi bañ mën a gindeeku ban mana a denc ak reer li ci jur nak moy at taalim xam ngeen al ilmu dafa bok ci al usus yi nga xamanteni mo fanduma al hadara al islamia parce que muccamax bu man di doon mu bëgg a avancer ci xam-xam ci lay jaar manam bu fekente ni nit ñi jàngalul leen rek manam dañuy wacc dañuy yegg ci hadidil fikri mo do sëriñ bi teel xam lolu teel wo woo yi ci xam-xam commencé di jangal lolu mi nga ci Euh, Mbacke Kajoor ci daara ja la tàmbalee di jàngale di commencé di taalif di commencé ak a jàngale sëriñ bi tim islaax boobu noonu leeral na ko ndax wax ne ne ilmiya xaadanii li shukrin wa salaax wan xaadalii bi xayri makrin alfalaax sëriñ bi wax ne ne moom ab muslix la xam-xam yi ko suñu borom dikkal nga xamante ni da cee war def islaax ca la ci jiitu mooy mu xamal nit ñi di jëm ci ilmu tawxiid moom moo jiitu moo tax euh, ñu gis feneen ci mbindam muy wax ne himmatiya irtaxat li taalimi al ulum li wajhi sil arsil muqaddim al alim kon moom yitteem yépp mooy dafa bëggoon a samp xam-xam moo tax mu bind ci lu bari dem ba bindam boobu noonu mu mel ne da ci def lu ñu tuddee alfaxru karaamati xattu yaddi karaama xattu teg tegtalewul ne sëriñ bi ci mbind mi lay ndamu waaye daa fekkoon ne jamono jooju africain yi daawuñu bind daw ñu bind kon sëriñ bi ñëw pour bëgg a woo maanaam mboolem boroom xeet xam-xam yi ñuy jëm ci taalif kon sëriñ bi li jiitu ci alxitaabu maktub mooy lim taalif lépp di soññee ci xam-xam lépp ci lay dox alxitaabul maktub ñaareelu mooy alxitaabu asafawi bu ñu ko waxee mooy lan xitaabu asafawi mooy lépp loo xamante ni sëriñ bi daana ko ilqa ci murid yi ginnaaw bu jullee ba noppi sëriñ bi bu ma saana julli ba noppi daana def ay dënkaane ay wasaaya yoo xamante ni da ko daa def murid yi loolu nekkul lu muy bind waaye xitaab as-safawi la day wax ñuy dégg mën nañ ci indi ay misaal yu bari bokk na ci daana wax ne maa ngi leen di dënk ngeen am yërmaane ci mboole mbindeef fii doonte kuy moy la sax xatta alxusaat la wax mbindeef yépp maa ngi leen dénk ngeen am ci ñoom yërmaane kon sëriñ bi ci biir daawa bi muy def ak xitaab bi muy taw jii ila atbaa yi mi ngi leen di dénk ne leen na ngeen taqoo ak yërmaane ci kan ci mbooleem ibaadaat yi rawatina ci ñi nga xam ne dañu moy am na ñoo xamante ni buñ demee ba commencé moy nit ñi dañ leen daw waaye war nga am ci ñoom ñeewantu ak yërëm ndax sëriñ bi nee na safaxa boobu nga am ci ñoom moo gën nga di leen ñaanal naan yal na la yàlla gindi amal ci ñoom ñeewant kon loolu day dugg ci alxitaab as-safawi ba tey bokk na ci sëriñ bi bu masaana julli ba noppi mag ñi génn daana bokk ci lu muy dénkaane mooy maa ngi leen dénk ngeen sàkk lu lew bi talabil xalaal daan na bu ngeen ko amee fala takun mushrifan mooy bu leen ko sànk bu leen ci ëppal def israaf israaf mooy lan moy nga am xew wo xamanteni war nga ci meuna dépenser manam 5000 nga def ci 10000 000 israf la mbiri dafa wara équilibre serigne bi neena bu ngeen faggo lu lew bu le ci def duñ tuddee israf waaw loolu serigne bi da nako tere batay da daana wax ne kep koo xamanteni dafa lek lu haram wala mu lek lu neunt ñaari lu ci man di doon lam lek ci loola lay jëm waaw nee na nit ki su fekkente ni dafa jëfandikoo lu xaraam doonte dafa bëgg a tabax néegu yàlla wala mu def ci lu baax du ko man loolu day delluwaat ci xaddis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne nit ki su fekkente ni day def lu xaraam di ko dundee di mu ngi nekk naanam léppam kooka naka lay ñaane yàlla yàlla wuyu ko kon moo tax sëriñ bi ci tarbiya bi mu doon def murid yi mu ngi leen taw jiir di leen xamal ne lépp luñ faggu ci lu xalaal buñ ko sank waye tim nañ fexé ba buñ dugal seen biir yi lo xam subha lay doon subha moy lo xamanteni li xamoo ba xam dafa haram dafa dafa dagan mi ci digënté bi loolu da ko wara tek ba am loolu leer ndax bo xasse bu dugg bu xasse bu dugg sa biir bi ah lam fami resé wal walxiyaasu billah batay bokku na ci nasaahi yi nga xamanteni wala wasaaya yi nga xamni serigne bi da na ko def moy amna bis mu wo Serigne Malick Ndiaye Lantinor Serigne Malick Ndiaye Lantinor bokon ci magni Serigne bi wax bu mu ñew nako ya Malick demal ci mbolo mi nit ñi nga wax leen na leel aljana jo xamanteni ni top ndigelu suñu borom yi do baye terem yi aljana joju Ahmadu amu Allah wax manam aljana jo xamanteni do top ndigelu yalla yi waye li la suñu borom tere ba pare do ko baye nee na àjjana jooju man ëmm ko daal ci teg ne képp koo xamante ni gis na sëriñ boo xamante ni mënaan la leen ko na ngeen ci dem man iñaane wu ma leen ko kon loolu waxi sëriñ Tuubaa la loolu li muy tegtal mooy sëriñ bi euh, xitaab tarbe bi mu doon def dafa leer fexe na bay murit ñi ñu fexe jaar ci yoon xamal ne leen ni nekkul lu yomb loo xamante ni da ngay tëdd ka nelaw ñu ne la ajjanaa ngi ni déedéet sëriñ bi jàngalewul loolu ndax day wax ne rajaaw jannatin bila taatin bi sunnatil maahi xuruurun yaati kon loolu dalil na ci am mbindam euh, ba pare du euh, sëriñ Malick Ndiaye lantinoor dong waaye am na yeneen ñu bari ci mag ñoo xamante ni sëriñ bi daana def xitaabaat yu mel nii ci ñoom di leen dénk di leen jàjji di leen moytandikoo sawara di leen tiital ban jàpp ne ñoom ñii kat buñ faatoo sawar lañu war a jëm loolu ci xeetu xitaabaat ak tarba bi mu doon def da ci am benn tasir bu am solo euh, yenn xeetu xitaabaat yi nga xam ne am na ci mbindum Cheikh Ahmadou Bamba bi ci njëkk mën nañ cee xool xitaab boo xamante ni mu wajjahun ila bi sëñ Tuubaa des fois ci ay xitaabaatam ay waxam moom wax yoo xamante ni digganteem ak boroomam la wax jooju nag dafay xóot des fois moo wax joo xamante ni yow pour nga firi ko ci arab ni nga koy déggee mooy ah sëriñ bi lii mu wax fii kan moom doy na waar daal waaye loola lam waxoon ca masaalik rek kalaamul awliyaa la su fam ndax dafa am loo xam dafay dugg ci ay sataxiyaat ñoom sufiyank yi dañ am benn xam boo xam bu ñu ci tolloo wax ji ni wax ñoom ñoo koy dégg léegi ku tollut ci luuxa bi ñuy waxee doo mën a comprendre léegi nag sëriñ bi loolu des fois da koy gis ci ay mbindam day bari lool des fois mu ne jaamu naa yàlla nangami at ñu door bind aadama léegi loolu noo ko mën a déggee loolu wax dafay xóot waaye loolu xitaab la boo xam ne digganteem ak boromam la maxaama bu mu toll la maxaama boobu nag boo fa nekkee bëgg kaa leeral wala bëgg ko firi ci araab du dem kon ñoom seeni wax dafa am lu ñu tuddee ay satxiyaat boo gisee euh, alxalaaj ñu rey ko lu mel noonu la ndax donte am na problème mu politique bi tax ñu rey ko sax waaye wax jooju mu doon wax def al ittihaad wàcce suñu borom boole ko doomu aadama bokk na si li tax ñu atté ko atté sharia pour na dañ ko ray ndax jëm jo xam da ngay taxaw né kenen amut ku dut yàlla waaye sa jëm ji da ko jël misal ak no mo yalla ma fi illa allah lolu wax ju du la wax ju mel non nak des fois day bari ci mbirum cheikh ahmadou bamba khitabat yoy noonu li war ci talib bi bu ngay jang il faut ngay moy ko ben moy su fekkene luga boo ko ci tasawuf nga jall waaye boo fa taxawee rek ba ko firi du dem da indi ay ay lënt lënt moo tax sëriñ bi teela joxe maanaam euh, laytaay boobu noonu ne kalaamul awliyaa yi lastu afham maanaam bu la waxee rek wax la abdul wudud waxoon kalaamul awliyaa lastu afham ilaa ne nii ana ana wam hum man may abdul wudud ñoom nag ñoom seen biir la kon wax jooju noonu il faut ngeen di ci bàyyi xel beneen xitaab bi mooy digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa ci ni mi tagge yonente bi alayhi wasallam nga gis ne kitab lo bo xamanteni leppam day delu ci yonente bi alayhi wasallam ci côté madh ci côté sana ci côté salawat yi mi def yep ay khitab baat yo xamanteni dem na ba toll ci fo xamanteni ni waana nit toll ci ci tagg bi alayhi kon muy yu am solo ci xeetu façon discours yo xamanteni sëñ tubaa da kay waxe yonente bi salallahu wasallam ndax des fois nga muy tagg yonent bi taggin woo xamante nii maanaam ni waa nga gis kuy taggee noonu ci côté jinaas bi ni mu koy indee ci côté maanaam ni muy boolee tur yi ràbbale ko ci biir ni waa na nga gis kuy taggee noonu yonent bi sallallahu alayhi wa beneen bi mooy xitaab boo xamante ni sëriñ bi da koo def mu jëm ci ay at atbaam mooy ñi ko topp ci boobi nag mooy mexwaru alxadis ci lañu war a taxaw war ci waxtaan xitaabaat yi nga xamante ni mooy xitaab at tarbawi bi nga xam ne Serigne Touba moom la yare murid yi euh, loolu biñ ci njëkk a jël mooy alxitaabu at tarbawi alxadimi ala al mustawa ar ruuxi xam ngeen ne Cheikh Ahmadou Bamba ci mu mujtamax senegal fekkoon na mu mujtamax bi am nu bindoo nit ñi seen gëm-gëm woyof lool nit ñi jengoon jëm ci mbirum àdduna topp buur yi di leen tagg li ñu tuddee almarjiheet ak diine ya xaw a delluwaat ginnaaw diine di jooy amul ku ko protéger ndax dandoo fo dandaa foowe diine ji beneen biti mooy kasratul jahl nit ñi réer gi dafa bari lool waaye ba tey wa safa sifal axlaaq jukke yi xaw a des ba tey loolu lépp sëriñ bi fekkoon ko fi لكن نان لا مانا ديفه تربيه تي كوتي المستوى الروحي هناك بروبليم سيرن بي غينا بيغا خا نيكون الشيخ المعلم خا الشيخ المعلم بلاغا دون شيخ المربي دا دون شيخ المعلم دورا دون الشيخ المربي سيرن بي نا دا جوغي تي شيخ المعلم مو شيخ التعليم نيو تي شيخ التربيه لولا مينكو تامبلي وون بي واجورم نيكيم باكي كادور ginaaw bi wajurum bi faato nak Maam Mor Anta Sali ci la tàmbalee def li tuddé euh at tarbiya bil himma ci la wote wote mbusi bob nonu ta Cheikh Mahamadou Lamine job adagani di leral ci téeram ba euh bi nga xamanteni wote na ba am ñuko ko si ñu and ak mom sóobu mu sóobu leel ci côté li tuddé tuddee bi tajwiid manaj bob la seigne touba ñëk jël mag ñi di leen xifal xam nga ki ki nga xamanteni mom mo yare ñi façon yi dañuy bari bari gi ñu bari moo tax ku ci nekk day xool yoon wa gën a gaaw ci nga mën a yegg fa suñu borom mu jaar la fa am na ñoo xamante ni dañoo bëgg lekk dañuy toujours dañuy lekk ñoo ñooñu il faut nga di leen xiifal maanaam ñuy woor sëñ bi daana jëfandikoo méthode boobu ci côté tarbiya wal istixdaam al kasir am na ñoo xam ne sëriñ bi daana ci côté tarbiya ñuy liggéey rek ligay bari loolu seigne mamadou Lim job daa ne tudd na ko nee na daanan sikkar la ilaha illallah jang ci khasaidi ak toujours ñi takko ak lab ba pare di beru nit ñi rawatina jigen ñi nga xam ne bi méthode bu ñëk bobu li ñëk jël loolu mooy at al ula bi nga xamanteni ñom la sëriñ bi ñëk ñoo nga méthode bin jaar niwana jaar ci parce que ñoo mos lu metti mooy ñu njëkk ñi parce que jamono yooyu noonu murid gi demewul nii mu demee parce que booba metti woon na booba ñi ngi liggéey te booba tubaab bi muy ngi contrôler sëriñ bi booba metti na bokkut ak beneen bi dikkaat nga xamante ni bi sëriñ bi jógee ci géej gi la ñëw ànd ak moom xéwal yi bari na yu mel noonu bokkuñu kon tabaxaat yi wute na euh, sëriñ bi foofu noonu tarbiya bi mu doon def kon mënees naa génnawaat foofu noonu comme ni ko Cheikh Mahamadul Basir leerale ci téeram bi ne tarbiyatu bil maxaal ak tarbiyatu bil xaal loolu moo amoon diggante boobu noonu tarbiyatu bil maxaal loolu mooy irshaad yi ak taazib yi mu doon def mooy leer naa ko ci alxitaab as-safawi mooy nasaax yi mu doon def nit ñi des fois nit ñëw ci moom ñaan lu mu ñaanal ko wala mu sàkku gind sëñ bi def tomb yu mel noonu loolu ay irshaad la bu dee ci côté alxaal loolu dafay aaja taqoo ndax nit ki dafa am ay jàngoro yu nekk ci moom sufiyanke yi des fois dañuy leeral ne nit ki am na jàngoro yu nekk ci moom yoo xamante dafay aaja taqoo munta amul distance daal maanaam nga di ko bàyyi muy dem il faut muy taqoo ak yow ngay xam ban doos la war a jël fu mu toll fu mu war a wàññi fu mu war a yokk méthode boobu nag ay méthodes yu bari la sëriñ bi jëfandikoo foofu noonu ci mag ñi bi ci njëkk mooy am na lu ñu tuddee muxaalifatu alhawa sëriñ bi daana yar mag ñi ci ñu bañ a topp seen maanaam alhawa mooy seen bànneex maanaam daana rey seen bànneex ci lu bari ndax daana wax na ne tuuba liman yaqudu xijaahu duuna hawaahu lii de reda mawla maanaam texe ñenn ki nga xamante nii maanaam am xelam ci lay womati ko waaye du topp bànneexam ngir lan ngërëmal suñu borom kon sëriñ bi méthode bi mu njëkk a jëfandikoo mooy fexe ba mag ñi bañ a topp seen bànneex alhawa waaye day fexe ba seen xel yi mu doon làmp boo xamante nii dañ ci niiroo ba mën a yegg fan jëm beneen mooy tajannabu seytaan sëriñ bi daana yar mag ñi di leen xamal seytaane euh, bu naagu ci moom ndaxte nekk na koo xamante nii du bàyyi doomu aadama bi daana wax na laa tamanu makaida seytaani qabla firaaqi ruuxi lil abdaani waaw li annahu waxtal mamaat yati saxsan li koy yaxramahu ataati ndax jamono joo xamante ni saa yu demee ba sukkuraat teew day ñëwaat nee na bu bu leen ci moom kon koto boobu itam daana gis na sëriñ bi daana ci yare mag ñi bu baax a baax ñetteel bi mooy muxaalifatu nafs maanaam seen bakkan bakkan moom li feek yaa ngi koy jox li mu bëgg maanaam sa ruux gi day gën a tëju day gën a lëndëm Euh, sëñ Mouhamed Niang day wax ne euh, sëriñ bi bi muy ñëw jamono daa fekkoon jamono ji lëndëm crise waaye sëriñ bi méthode yii lay jëfandikoo fexe ba mag ñi lépp loo xamante ni da leen gaar ci côté bi sëriñ bi côté boobu mu damm ko daana wax ne wa minhu nafsuka i'zaran wa hiya adar a'da'in insanin kama jaa fil xabar sëriñ bi daana wax ne dee leen moytandiku ak nafs ndax bokk na ci noonu yi nga xamante nii moo gën a garaaw ndax daan nekk yow toujours di la yàqal kon dee ko beneen mooy tarku dunia sëriñ bi xam ngeen ne àdduna ku ko mas xeeb la ndax euh, jàngeen ci ay yu bari yu wane na ñàkk gi ñàkk solo mu àdduna <coughs> afan moo tax euh, sëriñ bi di dënk mag ñi ñu may ko àdduna ba nga jël seen yitte jëpp wekk ko àdduna waaye nañ fexe ba seen xol bi àdduna bu mu ci nekk nañuy dëddu di jaamu yàlla waaye di sellal seen xol non bokk na ci aspect yi nga xamanteni sëriñ bi doon na ko yaree ci tarbiyatu bil hal ci koto bobu ñu mën ci tuddu ay namasit ay exemplaire yu bari ñoo xamanteni sëriñ bi doon na leen yor ci domaine bobu ki ci njëkk moy mam Thierno Ibrahima Faati xam ngeen mam maam euh xeyna ñu bari dañ ko réere ci côté xam-xam ndax sëriñ bi moko jangal jàngal alquran moo jàngal lim xam ci côté diiné ci jamono jooju moko jangal tauhid jangal ko fiqh jangal ko tasawuf mu saksi saxsiye boo xamante nii bu ràññee ko lol ci côté Cheikh Ahmadou Bamba ndax manzila bim am moy manzila bi harun amon ci musa nek adaduhu al ayman nga gis ne man Cerno amna ay khususiyat yu bari yo xamanteni ragne ko nako bokk na ci khuwatul iman ne ko nako xamanteni gemam do manam force bi am mënu su ko xiyaas gëm gim gëm sëriñ bitim mu ne su ko xiyaas bokk na ci koo xamante ni aqida bi mu yor li mu tuddee salaabatul aqida aqida boo xamante ni bu dëgër dara mënu koo dindi gëm gim gëm jeex na amul koo xamante da ngay ñëw waxaat changé ko déedéet ñu gis na koo xamante ni daa amoon ay mabadi moom maam Cerno bar mabadi la moom daawut eh, def lu ñu tuddee bàyyi ay mabadi déedéet lim gëm ci lay jàpp nekkoon la koo xamante ni toujours tim ci alquran ak sunna mooy dellukaayam bokk na ci yiñ mën a wax ci moom maam Cerno mooy ku bari woon kersa la ku bari lu mu daa wéet la daa wéet bari woon lu muy xalaat lool di wéet di xalaat di dundal waxtu yi xam ngeen ne dundal waxtu yi dafa bokk ci li nga xamante ni mooy jariñ jaam bi xam nga di xalaat loolu nawun min al ibada la da cee bokk kon maam Cerno am na lu mu ràññeeku woon ci côté boobu noonu te moom bokk na ñi sëriñ bi defar ci côté tarbiya moo tax bi mu génnee mu mën a defaraat ay nit ñu bari maam Cerno nekkoon na borom xam-xam nekkoon na koo xamante nii maanaam euh, bu ñu doon tudd euh, maanaam économie yoonu mu murit ñi ci ëpp euh, li ñu daan liggéey daan tudd maam Cerno ci côté économie ci mbirum bay li mu ci doon def lu am solo la kon loolu day tegtal ne sëriñ bi xitaab bi mu doon def am na ay basamaat yoo xamante ni bàyyi na ko ci ñim doon defar benn muy maam na ñaareel ba Cheikh Mbacke Bousso Cheikh Mbacke Bousso doon boroom xam-xam boo xamante ni euh, ku ràññeeku woon la ci yamale diggante charia ak xaqiqa maanaam boo ko doon natt ci nattuwaay yi da ngay ciy fekk mu fees si dell Ah, Cheikh Mbacké Bousso euh, fii mu nekk ci Guédé sëriñ Touba moo ko joxoon ndigal mu ne fa di jàngale boolekaak di def ay iftaar ak booleeg mbooleem loo loo xamante am na muy masala bu mu war a tontu mu tontu ci koo xam dañ ko war a àtte ci diinatim moom it mu génnee nastu ñu àtte ko bokkoon na ci ay mission yi ko sëriñ bi joxoon mbooleem rasaayil yi nga xamante nii mooy ñëw ci sëriñ bi joge ci al aqtar wala al qabaili mu di ko tontu muy delluwaat ci ñom mo xam ci bur yi la wala ci yenen kilife yi kon momit it euh, bokk na ci basamat yi nga xamante bi banako ci ñom euh benen bi muy cheikh ibrahima fall ci exemplaire yi ñu mëna tuddu tudd muy ko xamante borom himma ju wu lool la ñu tuddé himmati wal irada ndax himma ju kawé moko may digënté bu gatt bi ñëwé ci serigne touba yagut li mu bëgg mu am ko ndax Serigne Bassirou dañuy nettali ba tey ci Minanul Baqi daal ne Cheikh Ibrahima Fall sëxul diir bu gàtt ci Serigne Touba mu am li mu bëgg ba Serigne bi gërëm ko mu delluwaat di commencé di tarbiye ay nit tarbiye na ay junni junni ci ay doomu aadama rawatina ci ñi nga xamante ni dañoo bokkoon ci këru buur yi moo xam Kajoor la wala Bawol wala Siin ñoom ñëpp nga xam bu ñu masaane ñëw dañu indaale ak rëy. ñu mel noonu dañ leen yóbbu ci Cheikh Ibra mu liggéeyoo leen ndax bu liggéeyee ñaq wi génn bu defee réegi dana mën a dañ kon ñoom Cheikh Ibra am na foofu tamit beneen dawru bu mu def ci côté tarbiya te moom it ci madrasa Cheikh ahmadu Bamba ci la génnee beneen bi tamit muy Cheikh Abdourahmane loo ñëpp xam ko ci mission bi ko Serigne Touba dénkoon ci côté alquranul karim nga xam ne loolu moo nekkoon mission guddi gi moom alquran la daan naafile ba pare ci mbooleem lu bari ci njabootu Cheikh Ahmadou Bamba gi jàngal na leen ci góor ñi ak ci jigéen ñi ñu ci bari jàngal na leen ñenn cim ci doom yi mag ñi am ñoo xamante ni euh, Cheikh Abdourahmane Lo moo leen jàngal xam-xam moo leen jàngal alquranul karim kon moom amoon na mission boo xamante ni mission bu ràññeeku la woon ci biir euh, liggéey bi Serigne Touba doon liggéey ci côté tarbiya euh, beneen bi mooy Cheikhul Hasan muy Serigne Darou Hasan Ndiaye moom it bokkoon ci ñi génne ci école Cheikh Ahmadou Bamba. mu doon koo xamante ni ku dëddu woon la doon koo xamante ni ku làmboo jukkay salafu saalix la ci bari gi mu doon bari di jaamu yàlla ay xalwaat yi mu doon def wéet gi mu doon wéet ci bëti nit ñi ndax bu ngeen ngeen gisee màggal tuubaa gi sëriñ mag bi avant muy dem ci géej gi euh, xalwaat yooyu mu doon def euh, bokkoon na ci sëñ Xasan daana ko defal ay xalwaat yu bari nga xam ne bi da daa woo même bi mi dem ci geej gi mom la waxon dugal ma xal ba nga xolal ma tukki bi bi Serigne xolé ba gis na tukki bi leer na ne de tukki bi dem gi leer na ñëw gi leer na bi dugg momit def aw xalwaam di julli ñom ñaar ñu bokk waxtu julli kon koku momit amon na na way ci keparuk Cheikh Ahmadou Bamba ba nga xamanteni ni Cheikh Ahmadou Bamba wolu won nako ci côté jaamu yalla wolu won nako ci digeentem ak njabotam wolu nako ci lu bari bari bari kon lolu moy exemple yi nga xamante ni nekkaloo nan ak Serigne Touba waaye ñii laa ci tudd waaye bari na waxtu yi moo ko dund may damay joxe namaas ji rek ci tabax al ura yi nga xamante ni ñoo àndaloon ak Serigne Touba kon loolu mooy côté mustawa ruuxi bi sëriñ Touba doon defee ak tarbiya nga xamante ni fexe na ba yar mag ñi taxoon na ak ñoom def na ci ñoom li mu bëgg a def ci ñoom ba pare ñooñu gën naat nan di former ay nit kon sëriñ bi mel na daawa bi mu doon def ci ñoom mat na sëkk. kon ñun ñoo war a roy xool ci côté boobu noonu ban yoon lañu ñu war a mën a jaar ba mag ñi fan tegoon seen tànk ñu tegaat suñu tànk waaye jamono ji mel ne na am na safaan tuuti beneen bi ci des mooy alxitaabu at tarbawi fil mustawa al ijtimaai ci côté social ijtimaa bi ban rôle la ci xitaabu at tarbawi am euh, joué ci benn rôle ban ban ban ban fonction daal la ci joué xam ngeen ne liñ tuddoon ci tàmbalikaay bi Sénégal dafa am ay awda Sénégal daa doon dëkk boo xamante dafa bari ay ay ay maanaam ay xususiyaat ci côté saxaafa dafa bari ci côté euh, ethne al irq yoo xamante dañoo wuute yu yëpp nekk fi boole ci xuraafaat yi bari ndax ku nekk da ngay indi say xuraafaat des fois nga am loo dolli ci diine ji te bokk ci muy gëm-gëm ndax bokk na ci liñ gëm ñun ba mu nekkee gone ba léegi man ba léegi maa ngi ko gëm te bi ma màggee lay xamante ne loolu du dara mooy tam bu ma saan am buñ jullee ba noppi dañuy génn di xool jant bi naan soxna Fatima day fóot ak yu mel noonu daal yooyu yàgg nañ koo dégg te loolu ay xuraafaat yu ñuy gëmloo rek te dara wéru ci waaw beneen euh, lu jëm ci mbirum as-sihr xam ngeen ne Afrique njabar ak yu jëm ci yooyu noonu dafee bari ak taqdis asyuq ño xamanteni amnañ ben nañ way bi ci bir mujtama bi te ñoom neeku ñu ci yoon sëñ Tuubaa fofu la fekk mujtama senegal manam mujtama bi ni la doon dund aw da khatira la doon dund lolu tax mu ne khultu faman yurid salah al amal fal lil awliya al kumal kon señ bi telna jël manam euh leral wax ne képp ko xamante ni bëgg nga yëwénal jaar ci yoon wu baax na jeng jëm ci nit yàlla yi nga xamante ni mat nan ñi nga xamante ni ku topp ci ñoom ñu yegg la waaye am na ci ñoo xamante ni ku topp ci ñoom doo dem loolu sëriñ bi wax ne ne isbaana jahran annama suyuqu hadha zaman julluhum fuquh te lii bi ko sëriñ bi wax dafa mel ne tey jii la ko doon wax te ay jamonoom la ko doon wax ci jamono jooju waaye day mel ne bayit wii ci jamono jii lañ ko war a appliquer sëriñ bi dafa wax ne bariwaa na maanaam ci jamono jii ay sëriñ yoo xam dañoo jug di woote woo jëm ci yàlla di woote woo ak wilaaya di woote wooy ay xam-xam te ñoom ñëpp ay fiir rek lañ ñun këpp rek lañ bëgg te lii bi ko sëriñ bi wax yàgg na waaye mën nañ koo tatbiq ci jamono jii ñu nekk fi mu toll nii da ngay gis ne li sëriñ bi doon wax daal li ñu ci alxitaabu at tarba yu sufiyanke bi xitaab bi day day day manam wër ci jamono ju nek dang koy man appliquer moy xitaab Cheikh Ahmadou Bamba jamono ju nek da ngay mëna jël mëna wax ji seen bi tej ji la ko doon wax mu leral ci ñooñu na amna na ci ñoo xamanteni mbirum aduna dong lañu wut manam ila riyasatin bila tasatturi lol dong moy seen mecc xol nguur gu ñew ñu mëna and ak yow dila jaamu te amuñu ci ben nak luñuy ñuy lu nak mom amuñ si benn kersa nag waaw amaana ci ñoo xamante ni seenum njàng sax leerut maanaam mënuñu la wax ne lii mooy farata lii mooy sunna ba pare di ñoddi ay mbooloo yoo xamante ni ci fitna rek lañ leen jëmal walam yu mayis bayna fardin wa sunan wa yajisibul wara lii moo jibil fitan waaye yemuñu te de waaye wa yaddaci al kamaal wal wilaaya dañu woote woon ne ñun daal am nañ wilaaya am nañ ak kamaal ku yegg ci ku jàpp ci ñun da yegg te fekk ñoom ñëpp dañuy puukarewu ci biir mbindeef yi ak bari ay nettali te la ñu woote wu dara ci dëkk kon suñ Tuubaa fii la fekk maanaam mujtama Sénégal yi ñu di ko dund léegi sëriñ bi ñëw pour war a def jiit xitaab bi jëm ci lan mooy kon il faut mu leeral ci tawxiid bi loolu tax mu ne ujaddidu a tawxiida wal furuua maa tasawufin xawa burua kon sëriñ bi fekkoon na ci côté tawxiid bi nit ñi seen gëm-gëm wàññi maanaam nañu war a gëmee suñu borom des na waaye nañu war a gëmee furo yi nga xam moo aju ci tawxiid ba tey des na moo tax sëriñ bi ñëw ngir yëwénal loolu noonu commencé def tarbiyam boobu muy def euh, di taqoog mag ñi di leen digal ñuy yeesalaat seen tawxiid seen diggante ak seen borom sëñ Tuubaa ku mas a fonk tawxiid la lim ci bind ciy téere kenn xamu nu mu toll loolu lim ci jublu mooy jàngale tawxiid jàngale màggug suñu borom gi waaye wane na yàlla mooy yàlla yàlla doon moo fi nekk keneen ku dul yàlla ab jaam nga Sëñ Tuubaa lool la daa jàngale keneen ku gëm leneen nag moom loolu moom la concerné waaye Sëñ Tuubaa lim lim lim li ko concerné mooy li mu woote mooy moom ab jaam la te ñu topp ci moom lim leen digal mooy ñu yeesalaat seen tawxiid beneen bi mooy jeexintal tarbiya bi Sëriñ Tuubaa doon def ci côté axlaq mooy azaaru tarbiyatu fi majalil axlaq da gis ne sëriñ bi bàyyi na ci ay basamaat yu am solo ci côté tarbiya ndax dafa woote woo nit ñi dañoo war a jàppante nit ñi dañoo war a jàppante waaye dañoo war a bëggante dañoo war a dimbalante loolu mooy mafhumu Cheikh Ahmadou Bamba sëriñ bi danaa wax ne wala tabaaxadu wala taxaasadu wa fi lesi yunmi alxuda taadadu sëriñ bi mu ngi dénk murid yi ne leel bu leen di iñaanante ndax iñaan fu mu am xol yi duñ bëggante te sëriñ bi dafa bëgg ñëpp jàppandoo bëggante li wajhillaahi taala sëriñ bi wax ne nañu jàppante di def maanaam dëgërantoo suñu biir loolu sëriñ bi def na ko ci biir tarbiya ndax def na ko ci biir mag ñi ndax mag ñi sëriñ bi jar boo xoolee niñ jàppantee seen biir ba ñu ci bari da tudante ay dom ngir lan serigne bi mahabba bim def seen xol bi nga xamanteni ku gis sa morom da koy jox ben place bo xamanteni japp nga ne place bi sax manam wuñu fo tek kenen manam bo gisone serigne bi place bang koy tek bo gisse kenen dang ko fa tek ngir lan xooloo ko way da ngay xool jëmmi serigne touba ci mom ngay xol moy mahabba ga dañ ko bëgg ngir dañu nekkon ci bërëb bo xamanteni serigne bi mo leel bokkon do leel defal moy ben ñaaral moy ad dawatu ila al wahda الشيخ احمد بامبا يغنا ووتو نيت ني دون بن الوحده نده امه بي سو فكانتني مجتمع السنغال بي نيت ني بولوون دون بن مانام ني دغو تي اي جافه جافه لولا دا فا يوم لولا دا سيرن توبا ني كيب كو خامل غيس نين كو موي генي كلمه لا اله الا الله بولل نونو اك موم مانام كيب كو خامتني ميغي واخ لا اله الا الله موك جولي الله képp koo xam ne gëm na yàlla rek jàpp na kooku seen mbokk jullit la euh, bi ci topp mooy ad daawatu ila tajawusi al ixtilafat al fikriya al suufiya mooy sëñ Tuubaa bu ngeen xoolee ci mag ñim yar ak ñim defar am na benn fikra boo xamante ni sëñ Tuubaa da koo raf da koo bañ carrément muy ban fikra fikratu taazub wa taifiya xam nga Sénégal am na ci ñu bari ñoo xam li ñu woote mooy fii laa far fii laa bokk sëñ bi nag boo xool ci yoonu murit amu ci loolu amu ci ñim yar ñëpp daa fexe ba am lu mu leen gëmloo gëmloo na leen diine ji jan la islaam ji jenn la yonente bi jenn la moo tax sëriñ bi daa dàq fikratu at taasub wa taifiya dàq na ko ci mag ñi moo waral mbindam mu siiw moomu ñu bari di ko dégg muy wax ne fa kullu wirdin يورد المريد لحضرة الله ولن يحيدا سواء انتمى إلى الجيلاني أو انتمى لأحمد التيجاني أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على صواب sëriñ bi boo liiree baydi yi day tegtal ne moom wóotewul na ñëw leen ci man déedéet sëriñ bi wóotewul na ñëw leen ci man waaye dane bépp wird boo xamante nii dana yeggale nit fa suñu borom moo xam wird wa dafa jóge ci Cheikh Abdul Qadir Jeylaani wala mu jóge ci Ahmad Tidiane al Sharif wala kum man di doon ci aqtaab yi nee na da ngeen ko jël ndax ñoom ñëpp ci sawaab lañ nekk maanaam ñëpp ci ak njub la nekk loolu mu doon benn euh, benn benn mulaaxasa bu am solo bu ñu ci def mooy yeneen tarixa yi tey boo ci bokkoo am na lu ñuy bañ ñoom tey boo bu dee beneen yi nga bokk de naan la tarixa bi kat mënoo cee bokk di def nangam waye tariqa al muridi ya ngay gis muy tariqa boo dafa am al infitah, serigne bi dafa wote wo ci ñëpp daal ne bepp wirdu bu ngeen gis murid bi kon bu gese wirdu tidiane man na ci japp wirdu khadir man na ci japp est ce ñeneen ñi man nañ ko ndax ñom dañ leele teunk waye murid bi serigne bi teunk ko dana ko fo gis lu bax rek demal nga jël ko ta lolu amna fenen fu ngi koy fu gëna leer Euh, wax ne ne wa amma ahsaabul aqtaabi wa daawaatu saalihina fa azintu lakum jamian sëriñ bi moo wax ne mbooleem kuréel yi nga xamante ni ay aqtaab lan ay nit yàlla lan wala seeni ñaan sëriñ bi nee na dénk naa leen yéen ñëpp ngeen jëfandikoo ci kem la ngeen ca mën a jëfandikoo waaw fu ngeen ko fekk rek ci lu baax na ngeen ko jël lool sëriñ Tuubaa moo ko digal murid ba pare sëriñ Tuubaa leeral ne mboolem ñi ko jiitu ci yoonu tasaw ay sëriñam la ndax sëriñ Tuubaa bu ko neexoon mu ne man maa fi nekk saxal bopp waaye deful noonu dane naa masayixi sayduna aljilaani wasalsali maahu atijaani kon loolu li muy tegtal mooy ñàkk fi jiitu woon saxal na ne ñoom ay sëriñ lañ ay sëriñam la parce que jaar na ci seen yoon ba suñu borom defal ko ca féex ba mu am ci ñoom lañ ci am waaye nangul na ñoom ñëpp Euh, bi ci topp te sëriñ bi doon ko wootew mooy at taayus azilmi mooy sëriñ tubaa daana woote woo taayus azilmi mooy dund ci jàmm nga gis ne bu fekkoonte ne nekkoon na koo xamante ni ci vion laa lay dox bi nga xamante ni tubaab bi mi ngi ñëw di ko jël si sëriñ bi booba mag ñi gëm gi ñu ko gëm ak topp gi ñu ko topp bu woote woon rek maam dañuy xeex moom waaye sëriñ bi dafa dàq al onf dafa daf ko dàq ndax moom dana day jihaatee ci xam-xam ak ci ragal yàlla ñaar yooyu mooy ñaari ngàndaay yi Sëriñ Tuubaa di jëfandikoo kon moo tax ataayus asilmi euh, ci côté sécurité ci côté jàmm ci côté stable Sëriñ Tuubaa da koo jiital walif ñuy jëfandikoo fitna wala al onf Sëriñ Tuubaa da ko daa bañ loo tax mu ne ngay wax ak nit di ko biire jëme ko ci yàlla moo gën ngay jihaatal ab yéfar summa nasihatu li ahli al-bari khairun min al-jihadi fil kufari waxat ne jàmm joju nonu Serigne Touba di ñaan dang koy fekk ci bir ay xasidaam bi mi sañ ci Daaru Salaam xam ngeen ne bokk na ci lim doon naan waj'al salamatan tadum ya salam liya walil iyaali fi daari salam kon ci ahmadu Bamba lolu nokta la bu am solo bo xamanteni yitelo nako muy atayus asilmi kon yoy mu aji won ci yi ñu waroon a waxtaanee waaye ñu bàyyi xel bu baax ne Cheikh Ahmadou Bamba eh, discours bi mu doon utiliser di ko jëfandikoo ci yoonu murid yi mooy fexe ba murid yi jaar ci yoon woo xamante ni mooy yoon wi gën ndax eh, eh, tasawuf bi ñuy jàngale nii rek maanaam bu dee ci Sëñ Tuubaa fintoon yi tasawuf nekk loo xamante ni ay wax la ci moom waaye daa nekk manhajun tarbawiyun wa tatbiq moom tasawuf manhaj la boo xamante ni dañ koy dañ koy mumaarasa dañ koy jëfandikoo bu dee ci ñu njëkk ña dangay gis ne tasawuf dañ ko tënkoon ci ay jaamu yàlla yu mel noonu daw ñu jëf dañ soo xamante ni day jaamu yàlla yegg benn benn musawa bi waaye dawul liggéey ndax day ne ci jàkke yi di laaj sarax yu mel noonu sëriñ bi nag dafa dafa raflu loolu da kaa naqd maanaam dafa fexe ba nit ki di mën a boole ñaar yëpp di mën a jaamu yàlla waaye di mën a liggéey kon méthode la boo xamante ni bari na ci mbindum sëriñ bi xëy na waxtu yi moo xaw a nu mu tuddati ba duñ mën a détaillé yu bari waaye li am solo daal mooy ñu xamante ne sëriñ Tuubaa méthode bi mu doon jëfandikoo doon ko yare méthode bi yàlla dimbali na ko ba mu yar ci ay mag mag ñooñu génnaat yaraat ci ay nit ñu bari bari bari méthode boobu nag moom lañu war di moom lañu war di gëstu di ci jaar di ci tàggat suñu bopp bu defee ñu mën a yegg fa mag ñi yeggoon kon loolu lañ doon eh, jotali mbokk yi di ci jégalu lu baax lu ci eh, dëng rek ñu xamante ni ci jëmm ji doon wax la in uridu ila al islah ma sataatu wa ma tawfiq illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh maanaam daf naaqit day doon day mën a xool mbir yi bu ko am lu ca mën a critiquer mooy lu ca mën a xool xoolu boo xam ne Euh, commencé ci Mouhamed Abdou Aziz Alxasan al Basri daal di Ibnu Shihab Shafii waaye agsi ba ci Seydina Ahmad wala ñu ko yàlla fayal mu agsi ci moom leeral moom kat fa gaa yi tegoon tànkam loolu la teg tànkam waaye mu indi leneen lu bees loo xam ne xamuñu ko woon bu njëkk ci ak tajdiid euh, ci biir loolu tamit euh, leeralal na lan mooy wax mooy aw adduwiin adduwiin wi loolu mu wax ne langue ba nga xam ne moom la lay moom lay moom lay jëflante ci nga xam ne moom lay waxal jubluyum wi ca lam bëgg a wax bu làkk wi amee muy lu wér waaye tamit qaabili li ñu tudd alqanaat daanaka nday am lu ñuy tuddee moo la mën a lu mën a synchroniser kii wax ak ki ni waxal euh, loolu wax na ko ci biir yi ay ay waxam euh, ginnaaw bi mu ñëw ci wax euh, li nga xam ne moo nekk ci anwaawul xitaab mooy xeeti discours yi moo wax ne xitaab tarbawi am na mooy discours éducatif am na tamit lu ñu tuddee alxitaab ci alxitaabu tarbawi mu wax ci ne sëriñ bi ab murabbi la woon daanaka jàngalekat la woon xamle xamlekat la woon la njëkk muy nekk cheikhu murabbi la njëkk muy nekk kuy wommat ni di ko ci yóbbu ci yàlla nekkoon na sëriñu daara nekkoon na c'est un universitaire boo xam ne xamoon na xeeti xam-xam yi te amoon na pédagogie amoon na tamit ñu tuddee pour man koo pour man koo pour man koo mën a joxe euh, foofu mu wax ne خطاب يغا خامني موم لا سيغ بي دون اوتيليزي موي الخطاب المكتوب موي ديسكور بو خامني دان كو يخال موي لون مونا بيند سي اي حرف وايي تيميت بو خامني امنا سي بنن خطاب بو خامني موم لاي تودي الخطاب الشفهي ولا نكو تودي الخطاب الشفوي دانا سي نياري انيم ييب موي كو خامني كوتي اكسبريسيون لاي دون سي واخين اي اشاراتام يمي ديف danaka boy xol wax joji sax day melni al khitab at tarbawi bim don wax legi al maktuub ak al xitaabu at tarbawi al shafahi aw shafawi dafa mel ne dafa feeñ ci benn ci benn ci ay waxam wa bil ishaara ihdi muridan yatlubul inaara wa bil kalaamiya nga gis nga foofu dafa wax ni li ñu tuddee al xitaabul al al maktub ila tawaalifi wa bi tawaalifi an wa bi tawaalifi anir xuluba man yaltamisuuna al ilma fi kulli zaman kon al xitaabul maktub وبكلامي وبالإشارة كم شيء إشارة تام يويو عن عن كي منا جنني عن كي منا نكية نلولو بكو عن كي خيتيني خطاب عن كي نعم، الخطاب الشفا الشفاهي أو الخطاب الشفوي كن بيد وو موهلك ممسج مكبي وبكلامي وبالإشارة إهدي مريدا يطلب الإنارة جنينا وحتى نسرق آدم بي ne al khitab bo bu ko amé waaye tamit xitaab ci sëriñ bu mag bi loolu tamit alxitaab xitaab boo xam ne discours boo xam ne wala waxin woo xam ne da koy jëmale ci boroomam xam ne boobu daa danaan da doon xaas da doon loo xam ne dafa ay jagoom li nga xam ne moom la am ci digganteem ak boroomam xam ne keneen du ko ca fekk si moom loolu daf ko vidéolé daf ko tëj digganteem ak boroomam la euh, foofu da nga fiy dégg mu mel ne day wax ak برام إلى يقاد الله ما لم يكني ولا يكون أبدا يمكنني دانك بيد وولك دانك ري إندي الخطاب بيغا خامني الموجه إلى الله سبحانه وتعالى خامني فهو مو كلام الأولياء لست أفهم لأنني أنا أنا وهم هم كن بيد وولك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ila rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam comme ci waxinam wa antal karimu ana alxadimu dahran udimu fii ka sanaay xam ne daanaka lu mu wax lu nekk rek ci euh, waxam ji boo ko xoolee ci mbindi sëñ bi na ko cay gis antal karimu ana alxadim dahran udimu fii ka sanaay loolu xitaab la euh, nga ñëw tamit xitaab bi nga xam ne al ila atbaa'ihi mooy xitaab bi nga xam ne daf koo taw daf koy jëmale ci ñi nga xamne ñoy ñoko nangul ñu adhéré wu ci mom ñoo adhéré wu ci li ñu tuddé al muridiyya nangul ko amna ben khitab bo xamne sëriñ bi daf leen ko jëmale nga dégg ma kullu muridin bi yaluzu yazadu wa innahu min al ada mubaadu kullu muridin bi yaluzu falyudim tilawatan li ghayri dhikrin qad rusim nga gis ne kon bobu khitab la bo xamne muwajjah ila atba'ihi da ko jubale ci ñi nga xamne ñoy ay ñooy ay ñooy ay taalibeem kon xitaabu sëriñ bi ci mboolem waxin yi yàlla mi nga xam ne moo fi nekk biir asamaan ak suus muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy sëriñam waaye ñi nga xam ne ñooy ay taalibeem muy jële ci muhammad di leen synthétiser di leen jox kon loolu feeñ na ci feeñ na ci mbirum sëriñ bi bi mu ñëwee ba tamit ci li ñu tuddee alxitaab at tarbawi ar ruux yi mu leeral ci manhaj bi nga xam ne moom la sëriñ bu mag bi yoree woon ci côté boobu Euh, méthodologie bi nga xam ne moom la Serigne Touba doon doxe ci alxitaab at-tarbawi ar-ruuxi euh, mu wax ne li ci njëkk mooy muxaalafatu nafs ne nit dafa war a yor bakkanam na inna nafsal amaaratun bisu bakkan nit ku bëgg a dem ci yàlla bu toppee bakkanam bakkanam dina ko gàllankoor sëriñ bi ne kon na teg bakkanam ci ginnaawam jiital xelam ak xolam jëm ca boroomam kon lool feeñ na ci waxam tajannubu shaytaan shaytaan mi nga xam ne inna shaytaana lakum seytaane ab noon la te yàlla moo ñu ko wax ne mooy seenum noon moom léegi la alxuraan wax ne benn noon ngeen am muy seytaane na ko jàppee am noon seriñ bi wax nañu dañoo jëm jëm ca yàlla kon nañ moytandiku seytaane mi nga xam ne képp ko ànd ak moom mën na la yàqal kon sëriñ bi bokk na ci concept wala manaaj yi nga xam ne moom la teg mooy tajann bu seytaan mooy moytandiku seytaane waaye tamit mu xaalafatu nafs nit ki war na tamit kuy wuti yàlla war na tamit di bàyyi xel bakkanam comme ni ñu ko waxee woon léegi tarku dunya mi nga xam ne àdduna mi nga xam ne ci la nekk te ci lañ mën a baaxee sunu ëllëg moom it ñu xam nan lañ cay nan lañ cay doxee jël la ca baax waaye tamit sànni la nga xam ne moo ca nekk ci ab safañ bi ñëwee ba ci namaz yi ndax sëriñ bi lim teg loolu lépp nag xutta bi mu teg lépp bu amut bu defarul nit ku ko mën nit nit ku mën a làmb ne li la sëñ bi doon liggéey kon danaan loolu amut loolu mën a sànni la wax na bind na waye tamit amna ay exemplaires yo xamné da leena tabax ñu ay icône don ay ay ay ay monument yo xamné ne ku leen làmb daj leen mu cité ji ku mel Cheikh Ibrahim Fati borom darul Mawti yàlla ñu ko yàlla fayal xamné rakam la won sës ci mom waye tamit mu nangul ko ñu gis ci njambartem ci côté xam-xam waye tamit ñu gis ci côté jambartem ci côté tabax aduna xamné ne wax na ne danaka baykat la won bo xamné yémon na ci ay jamonoom ku daa gis kuy bayloo lu mel ne lu mel lu mel ne ni mu def kon sëñ bi jàngal na ko jàngal na ko yar na ko jàngal na ko ci côté jàng xam-xam waaye tamit yar na ko nàddante na ko tamit ci côté ci côté liggéey mu tudd ci ku mel ne sëriñ Mbacke Bousso al mufti bi nga xam ne képp koo xam ne nekkoon nga ci réew mi doon boroom xam-xam nawloo woon nga ko bokk na ci sax Seydi Hadji Malick nee na li muy wane ne liy wane ne sëriñ Touba nit ku mat la suluuku Mbacke Bousso benn yedde yi sëriñ Mbacke Bousso ànd gi mu ànd ak sëriñ lolu day wone ne Serigne Touba nit ku nit ku mat la mu wax ci ba ku tuddu tudd al hasan Serigne hasan jayran ya radiyallahu anhu yalla nañ ko yalla fayal te geureumal ñuko mu wone ne timit danaka bokku na ci ñi nga xamne exemplaire yi nga xamne Serigne bu mag bi yaral na len bopam ba ñom ku ci nekk lek université nga bo xamne benn branche la nga bo xamne fo dem fu nekk lek man nga fa man nga fa man nga fa jangale njàngaleem njàngaleem njàngaleem Serigne bi kon ñoñu ñoy icônes yi nga xamne ñoy ñooy monument yi nga xamne ñoo ballaloo ñoo génnee ci njàngalem njàngalem njàngalem sëñ Tuubaa ci côté alxitaab at tarbawi waaye tamit mu ñëw ba tamit alxitaab at tarbawi fi l mustawa al ijtimaai xitaab tarbawi nan lañ ko mën a déggee ci côté social nan lañ mën a gisee social bi ni dund nan lañ mën a gisee bopp suñu bopp ci njàngalem sëñ Tuubaa ndax ñun dañuy dund ay nit lan ñoo xam ne daanaka dañuy ànd ak àdduna di dox waaye nan lañ mën a gisee mbindum sëriñ Tuubaa nan lañ ko mën a jël mën ko manipuler mën a gis suñ bopp ci mbindum mbindum sëriñ Touba en tant que mujaddid foofu mu wax fi ne euh, sëriñ bu mag bi bi muy ñëw mooy li fay indi li ñu tuddee dafa ñëw pour tabax pour bennale lu ñu tuddee binaa ul wixda mooy ñu doon nekk ay nit yu jëm ci yàlla waaye tamit waruñoo safaanoo waruñoo bayante mu wax ba tey ne foofu ne wajal qulubana bilaa tawadud bila tanazun wala taxaasud yàlla ñoo ngi lay ñaan nga def suñuy xol mu nekk xol yoo xam ne xol yu bennoo lay doon yoo xam ne duñ soxorante te duñ iñaanante duñ xëccoo foofu mu wax fi tamit ne sëriñ bu mag bi bi mu ñëwee dafa dafa lu ñu tuddee naf yu at taasub wa taifiya dafa ñëw génnee fi lu ñu tuddee ak parparloo ak man fee laa bokk ndax moom wootewut woon wootewut woon lu mel noonu mu wax ne fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju la ilaha illa allah bu ngeen gisee koo xam ne mi ngi wax laa ilaha illallah mooy saxal na tawxiid kooku bu leen ko jàppee am noonu ak lu mu mën a mën a gëm ak lu mu mën a mën a yor ak euh, mazhab bu mu bokk ak euh, pensée bu mu mën a yor ci côté euh, politique am na ngeen jàppe ne kii seen bokk seen bokku jullit la ci foro yi ngeen di wuutee waaye usul ya kenn du ca wuute loolu bokk na ci njàngalem ku tedd gi mu wax ba tey tamit ne xitaab ijtimaai xitaab tarbawi fii mustawa ijtimaai sëriñ bu mag bi daf ñoo jàng lu ñu tuddee al infitaax li ñu tuddee dañoo def ñoo doon ñoo am ouverture dañoo dañoo doon ñoo xam ne ay nit lan yoo xam ne dañoo jàngal ñu ubbeeku waaye tamit wa qabulil axarin ubbeeku bi mel moom ubbeeku bi ñu mën a jël feneen kon sëñ bi daf ñoo orienté def ñu lim ñu def ba pare mais nag mun may ñu ñu mën a ubbeeku ci àdduna pour mën a jël yeneen mën a jël yeneen i xam-xam mën a jaxasoo yeneen nit du tey tamit nga garder li nga garder gëm ko waaye du tey li nga xam ne moom moo moom mooy mooy mooy mooy nga gëm li nga gëm mu tënk ci wax ba tey foofu euh, mu wax ba tey ne euh, ku baax ki wane gi mu wane ak matam wa zur xiyaar al ulama wa salihin wax di muhum lillahi jalla kulla xiin may naa la permettre naa leen ngeen mën a xool képp ku ngeen xam ne borom xam-xam la nitu yàlla la ngeen mën koo mën a seeti mu tënkee ci ay waxam ba tey wax ne ataayus asilmi sëñ bu mag bi woote woo doon woote woo jàmm loolu léegi mu doy la ci sëkk ne dafa jël benn baat mu tudd al murid baat boo xam ne képp kuy wuti yàlla rek baat boo boobu nga mën a wuyoo kon loolu da ko indi pour lan muy jàmmale euh, boppam jàmmale tamit réew mi jàmmale tamit boppam ak àdduna xam ne nangu woon nanguloon na ñëpp fu waaye mën a nekk ci mbaax nangul na la ko waaye tamit xañu ko moom it mu botte mu bo mu du boddee te ku ñëw tamit mu yiir la ànd yow kon daal bu doon tënk ci waxam rek Euh, thème bu riche la boo xam ne daanaka mën nañoo wax ne dañuy tamhid rek dañuy ñëw pour laytaayal waaye dëgg-dëgg sens wax ji xam naa ne lu ñuy topp lay ci yeneen i yeneen yeneen i domaine kon sëriñ Adama ñoo ngi lay sant bu baax di sant mbokk yi doon topp yëpp xam naa ne tamit sëriñ Mbacke mi ngi fi moom it chercheur la doon borom xam-xam euh, du ñàkk ne am na loo xam ne jot na ko jël ci wax ji ci côté bo xamné lu mëna a hmm. euh, loo xam dana am benn commentaire bo xamné dana ko mëna doli ci wax ji kon sëñ bi ñu bàyyi la ak euh, kàddu bi sëñ bakké Bismillahirrahmanirrahim. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di sant bu baax sëriñ aadama njaay ci thème solo bi nga xam ne mi ngi ko doon jàngat doon thème bu ñu war a waxtaanee jamono ju ne rawatina jamono ji ñu toll di sant bu baax it Baye Dame Ndiaye mi nga xam ne moo ko doon modéreel mel na ne thème bi liñ ci soxla woon am nañ ci lu kawe suñ njort xëy na kay liy jafe-jafe bi rek mooy yeex ga tàmbali. ba boy xol seigne adama yu ci bari day mel da ko doon euh di santi e, seigne moussa jatra mi nga xamne moy njitul barab bi di daray kamil mom mi ñu permettre ñu mëna bok ci mbolo mi nga xamne dañuy and ak mom liggéey bu am solo bi nga xamne lepp liggéeyal seigne touba la ci tassare xam xam akum jangalem ak ay xalaatam ak ay gis-gisam ndax jamono ji ñu tollu muy jamono magal dafa doon jamono jo xamne Euh, maneef na cee jàll lu bëree bëri ci njàngaleem sëriñ di tànn ay thèmes yoo xamante ni thèmes yu fasantikoo lay doon di ko jox tamit ay boroomi xam-xam yom te ni suñ ko traité ba pare dinañ gis ne lañ ci soxla woon danañ ko ci am euh, xam naa thème bi mu doon waxtaanee day mel ne lim ci soxla woon lépp am nañ ko ci comme ni ma ko waxee woon sànq rek du jar ñu ci commentaire commentaire bu gudd li muy wane rek mooy sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu li waroon a dox digganteem ak boroomam. lépp def na ko ci diggante alxitab bi nga xam ne da ko wax mu jëmee ko ci boroomam li mu war a wax boromam lépp wax na ko fi mu war a teg boromam it fépp teg na ko fa waaye sëñ aadama wax lu am solo ci diggante boobu nag morit yu baree bari léeg-léeg fi la ñu saaraane ndax dafa doon koo xam ne dafa bokk ci nit yàlla yu mag yi te dañoo wax ne wàlli yu boo jàngee téere yi tasawuf yi léeg-léeg day wax ala lisaanillaahi ci làmmiñu suñ borom léeg-léeg day wax ala lisaani ar rasul ci làmmiñu yonte bi alayhi salaam wasalaam léeg-léeg mu wax ala lisaanil wàlli ci làmmiñu wàlli yooyu nag su fekkee nit ki xamu ko mën naa gis wax joo am te ni day nuru lu rëy ci kaw te fekk ne wax ji xëy na mën naa bañ a doon lu rëy lool suñ ko jàngatee ndax am na loo xam ne ay may la ko suñ borom defal wa amma bi ni'mati rabbika fa ci cadre ci cadre bobu rek les koy meuna dugale señ bi ndamuwut señ bi puukarewut waye da mel da am lu ko suñ borom defal tolole ko suñ borom defal faw mu feñal ko faw mu genné ko motax sa da ngay gis nan muy wax ne rafaani rafiu fawqal kurama bi lafti bi munan lam tarima nga day wax ne yalla yëkkati na ma ci kaw mbolem tanef waye lan la ci tek bi lafti ci lu dul may puukareew loolu day nuroog li yonte bi alayhi salaatu salaam waxoon ne ana sayyidu waladi aadama wala faxr man may sangu mbooleem doomi aadama yépp lii ma wax nag dama ko wax mu doon lu am waaye doonut lu am te dama ko wax ngir puukarewu kon loolu faw ñu bàyyi ko xel xam ne eh, ki nga xam ne xëy na am njàngam melu na mu war dëgg-dëgg wala tasawuf xamu ci lu bari dëgg-dëgg léeg-léeg di ci xuus di ko jéem a firi mën na laa dugal ci loo xamante ni man laa andil alkane wala yu xeetuk yooyu parfois sax da gis ko te ni day jël waxi Sëñ Tuubaa joo xam ne wax ju xaw a yéeme lay doon waaye moom bu ko firee na mu koy firee lay wér ne maanaa ba sax demeewul noonu euh, bu dee lim jëmee ci yonti bi alayhi salaatu salaam it ku ne gis na digganteem ak yonti bi war ma jëm ko war a jox jox na ko ba mat sëkk bu koy tagg ni nga xam ne noonu la koy taggee ci tàgg yu rafet bu dee morit yi tamit bi mu jëmale ci ñoom la bu solo moom day làmboo taw ji muy orienté leen ak teg leen ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu siraatul mustaqim kon daal tem la bu am solo boo xamante ni jariñu nañ ci bu baax a baax ñu ngi lay sant suñu aadama di sant tamit sëriñ euh, Baye Dame di sant mbokk yi nga xam ne ñoo teewoon ci jataay bi ak mbooleem seen yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun di ko tasaare xam naa kàddu yooyu rek lañ ci bëggoon a sànni li ci des ñu bàyyi kook euh, sëriñ bu baax bale mu eggale ko incha allah jërëjëf mbokki taalibe yi nga xam ne nii yéen a ngi ñu doon seetaan di ànd ak ñun ci jataay bu tedd bu am solo bi fii ci daaray kaamil jërëjëf oustaz Adama Ndiaye ak Serigne Baye daam njaay mi ko doon modéré ak mbokk taalibe boobu nga xam ne itam def na ci jàngat bu am solo di jégalu mbokki euh, internet yi nag ak ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan télé wala ñuy déglu rajo di topp jataay bi ci dog-dog yi nga xam ne nii nemeeku ngeen ko wàllum courant bi ak technique bi moo xaw a demee noonu waaye ñu ngi leen ciy jégalu bu baax baax après mën ngeen koo toppaat ci ay site internet yu yaatu mën a am intégralité bi man ngeen ko toppaat itam incha allahu rabbi e, ci yeneen te e, chaîne télévision wala rajo yi kon li moo doonoon jataay bu am solo bi di leen wax rek ne suba incha allah am na beneen jataay bu am solo boo xam ne nii war na fee am e, docteur Khadim la di ku ñëpp ràññee ci xam-xam bu am solo moom itam moo ko fas yéene waxtaane oustaz góor gi ka moo koy modéré thème boobu nag di thème bu am solo rawatina nag ci màggal gi ñuy dëgmal ndax thème bi mu ngi war a wax ci addiya euh, solo sim am waaye addiya nekk farata ci am murit rawatina jamono yi nga xam ngeen euh, jamono yi ñu nekk ngeen xam ne yoonu murit moom naal yi ak mébét yi du mas a jeex kon yaakaar naa ne addiya du mën a ñàkk rawatina bis bu tedd bi ñuy dëgmal lu waajtaaj yu bëri bëri lu euh, gars yi waxtaan waxtaan addiya ji bu yemut xëy na dina am loo xam ne nii dina manqué kon nag addiya ponk la boo xam ne nii faratale ci murit suba incha allah rabbi docteur Khadim Sylla moo ko fas 15 h ngeen bayiko xel di len jajeufal di sante ak geureum mbollem ñi nga xamne ni jot nañ fe jaar niñ ko waxe ci njalbeen ci turu Serigne mustapha jatara mi nga xamne mom la fi Serigne bi tek mu ngi len di jajeufal ñëpp xamne ne jamono yi ci ay xat-xat lañ ne ndax programme yi bari na lool ci wajtaayu magal gi waye fexe ngeen ba lum gàtt gàtt lum xat-xat ci sen temps bo boole ngeen ci daalay kamil xamne ci tooli Serigne Touba yi nga xam ne nii ndigal da koo dab ngir waajal màggal gi la kon yàlla nañ ci daje ak ngërëmal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh